Yeah. Uh huh. Yeah. Nyanko Gihe, Nyanko Gisaga, Nene Dade, Dinyo Diwaga, Andaki Gang. laa mën a woy waaye naa ko a dégg waaye tey doog a dégg woyam bi bi Joshua say sens la waaw waaw ba dégg naa woy bi mais déggin ba faaw nga toll parfois si si asalaamaaleykum ndaa eh, asalaam maa ngi nii maa kan eh ah eh man la sabaay te bàyyi bis bàyyi sama loxo bi kii nga tax lan la. temps feebar. waaw moo nekk si réew mi. feebar. waaw ban feebar. feebar fen. ah fen waaw dama bañ koo wàll. waaw waaw. dama bañ koo wàll. ah max kii day tax day protéger feebar boobu. doo feebar. Ah. non. bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi toogal. man maa bëgg nga may touché. sa loxo sa loxo daa réglé wul añaaw ñan gisoo ñan bu mën yéen a ànd ah, eh, eh, mun ma fontoo du du sama mooy sama nawle ñànku saa bu génnee si kër gi kay jëm kër sa kër la jëm ci ah, isa jall yoonu kër bay sànn fan yoonu kër dafa daa faral di dem waaw kon fan la nekk. koor gi hmm. koor. man maa ngi ci koor gi. man daal ñun war nañu parler koor si nañu looy doy koor. damay fay. ah da ngay fay waaw waaw waaw. koor gi. Hmm. Hmm. nga war a woor benn neuf jours. waaw ngay fay sa biir. wàccu. ah wetu. waaw ah ah eh, naan nga naan waaw naa ndox. waaw waaw waaw ah, dëgg la damay fay ñaara. maanaam da ngay yow da ngay woor da ngay woor sa koor ngay ngay commencé. da ngay reprendre sa koor loolu ngay ah, fan yii da ngaa feebar. fan yii. Hmm. damaa jeex. da man da jeex lool mooy sëy sëy mooy sëy waaw an dukure bàyyi naa ko foofu fay ne mooy sëy de naan du du merde man boo gisee kay ma tëb loolu laal la dukure pour nga génn foofu moo tax ah wax la dara kan moom basa dukure dukure waaw waxu la dara tudd tur tudd ñaa ko tudd ma dukure waaw waxuma dara alhamdulilah alhamdulilah waaw jox amul tan ki moo yu fay boole boole waaw mu yu fay yaax waaw su ma demee su ma sàccee mas day daw demal sa mas nga dem ñibbi ba ñànku ñëw yaa si jàmm waaw damaa xaw sonn moo tax te yow sa wax daal laaj écoute bien te bu ma sonnee doo mën a dégg sa wax ji dafa ma commencé traumatiser caare mm, ah caare waaw am xam nga dugalante ah dugalante dugalante waaw waaw waaw sa daal yi ma nga dem caare dugal ko waaw waaw waaw waaw baax na waaw sama daal yi baax na bàyyi ma sol sama daal yi eh, téeméer mm. ñu jox ko daal yi jar karmu waaw nga jox ko daal yi waaw fekkee la dugalante sa tuba yi ñu saareel la ko si yére bi si yére ah si yére bi si la bokk waaw waaw waaw Wow. Vito cocktail, une explosion de saveur dans une même et seule bouteille. Free nous sommes au Sénégal, c'est un mieux sel naturel. buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi nag oh, oh. dina yok sen katan boole si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito so accident. pour faire bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nak si emballage civilisé Tour. wóor ak jus vito da amchoa. am choix te ñu ko ci Sénégal si anam yu naturel te disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison ini. Wow, wow. yàlla mën a bind moo tax mu naan waaye muñ yi aja lañ jëm waaw man xam naa ni mu fu mu toll nii sama néeg ma am aja malaakaañ koy commencé karool ku jur ñaaw ko ndaayaan di la fere kante nga ndax si am am jabar ji wiridi nga bool lépp muñ ko man de bu ma yàlla génne si muñ ka yi xaw kan la fay kooku ñangu lan la. kulaa bi de xaw na maa lay. loolu si quoi. sànq bi laa doon essayé. indi indi téléphone indi indi. jox ta téléphone. kulaa bi de su kilim da kilim. ñànku kañ laa la wax ni yow bul foowee ci courant. sama yi wóob jàpp naa. yow ñànku wax na la ñaata la courant rek. te courant wax na la bay bay rey nit nan la lay def. illah allah. eh, eh bi. courant bu lay rey étape par étape la sa deret bi lay njëkk a muucu doo ko muuc sa sa sa dëtt bi wal sa yaxi doo ko futti sa der bi maanaam bu lay gis yow squelette la ñuy gis bàyyi courant ah man lu lu fi ndaan ñëw yëpp mën naa ko ñaan ko nekk nag yaa ngi fee ci courant bi booy mooy kii bi yow salfe bi yoroo déedéet yoru ma salfe téléphone eh eh foo jëlee téléphone bi waay sa ke ma xaamay maa ngi naka mu waaw nice yoroo chargeur bi. dinaa dinaa chargeur. ndaaya ndaaya fii waaw. wala taw woo ah nu may xamee yaa fi yow da ngaa mos a yendu si kër gi ñoo ma ne ko da ngaa gën maa nga di la wëri de waaw. ah waaw ko. eh, eh. mu. waaw naaj. du ko de laa naan nag bu mu nuyu ma Dukure lu nga fi jógee barki de mën la wuy sa papa Dukure su ma naan naka ma koy loolu laa lay laaj. Dukure woo wax mu wax dafa xamante ni. waxi dafa la waaw ay waxi jabal may SPL naa ko pas a xam nga xam la. ah waaw a a. Eh, mi bu ñu jëlee di man kay ba mu ñëwee fii nee daal di daa bëgg a jël munaas may ko ñaaw man damaa yaakaaroon sax dama nak di di ma gifal noonu nak di deug la yow ya, bu la bu la daali bëggee may munaas do da wa fat la moo nekk si munaas wa ak ah, sama diggante ndaaya sama diggante munaas ñoom ak sama diggante gaay gaay mu ko eh, eh, di ko may di may di may falaaw mu xey benn bi sa bëgg jékki-jékki la jël jël looloo xalaat eh eh eh eh, eh dof nga Ya barki dee mo ñaay deguma la ngay wax bi nit nan ko jigen bu amagul jëkkër côté wi fi la dégguma la ko xey wax waaw loolu foo tek wax joju ah doxaan ak jabar daa doon benn kam moo la wax ne yàlla daa bind si jëwu ndaayaan bi mooy munaas mooy dan jabaram est-ce que xam ne sa yëpp takkee na ko sa aras damay jéem a convaincre la eh, eh, eh, sama jàmm ma naa loolu man sa bàyyi laa dinaa la dugal si musiba ah, loolu dinañ ñaaw de la moo ñaaw hmm? boo gisee ñaaw day ñaaw boo gisee loo xamante ne yàlla ko dogal sa digganteeg munaas loolu lay doon teg ko foofu ba ba ba ba waxtaanee sama xarit yi ba xam. bul waxtaan man xarit da nga am keneen ku doon man koy waxtaan. waaw sa sa jàmm yi la laay waxtaan ba xam ñoom ñoom moom la mooy seen la doon la affaire nu koy gisee problème bi loo xam ne loo xam ne day continuer moom ba nag kaa war a xoolaat baax rek. sama gis-gis man anu yow si yéen yéen proposé affaire moo tax dama leen la xalaat yéen leen arrangé la ngeen wax dama leen laaj keneen koo xam ne moom moo nekk ci biir ayel kon ñaa ko yow man boo ma fi bàyyee dem di laaj keneen xalaat ku kan ngay laaj xalaat koo xam ne xalaat xalaatam mën na gën sama bos man mu doon sa bàyyi. Ah, yow sa xalaat la loo bëgg. mooy nga jël menace mu nekk sa soxla bu ko defee ndóol ju nekk moo wàññeeku. léegi nag moo tax ma ne li la arrangé nga bàyyi ma laaj keneen bàyyi ma nag bàyyi ma laaj bu ma forcé. kan ngay laaj léegi de kon bàyyi bàyyi ma loo loolu naa ko baax ma leen forcé tentative de mool bàyyi nag ma dem laaj sama xalaat. léegi wax ma koy waxtaan ah. awa 아우 은미 미! 못 생각할 거. 알아서 하자 뭐. 마 바로 타는 건. 마 바로 타는. 앞으로 좀 하면 나라. 로케 와. sa bàyyi nag bàyyi su ma wax bàyyi après mu ñëw wax la. waaw baax dama waaw dama. damay forcé nii nag yaa may forcé la. ñaaw ko ñaaw ko xanaa man kay bu bu teraanga ñëwee bëgg a dem feneen yow boo gisoon teraanga boobu da nga ko war a jël dugal ko si biir kër gi lan la olof wax dàq kéwél mu jëm àll dàq ko mu jëm kër. li du mil kéwél ak lu ñuy dàq ak lu ñuy lool li du mil yooyu loolu mil kéwél. dama taal lan aw bari te xam naa ne bu soobee yàlla lii ma la wax sa papa du ko wax moom lay aw bari ay affaire yooyu du mbiri loolu convaincre dof moo gën a métti yeah uh-huh. yeah ñanko ngi xeex ñanko ngi saaga nee na daa dee di ñoo di waaga ànd ak i gens kookoy daaya ñanko gi fépp boppam la ca naa ñanko yow xanaa gisoo ñanko yow boo xamoon ñanko Vito cocktail une explosion de saveur dans une même et seule bouteille fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sel te naturel buy bi nag day wañi toy baax si yaram tayit yi leen sawarlo jus bi sàppi nag oh, oh dina yok sen kattan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg soo naturel nak vito accident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nekk si emballage civilisé tour wóor ak jus vito da ngeen am choix te ñu defaree ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison